laajte ma pour jox ma convocation ñëw na fi ñaari yoon il paraît dem nañu seet ma ci yeneen i bërëbu liggéeyukaay il paraît waaye fekkuñu ma fa man Bougane ku ma xam-xam ne dawuma daayuma fu ma waay seet dinga ma fa fekk ñeenti barab lay nekk bu dul samay ñaari kër nekkuma ci suma barabu liggéeyukaay di suma bureau Mangi nek nekk cimetière Yoff te ku ne xam ban heure la fay dem kon dem dima ma des médias yak sa temps la parce que man des médias ku ne xam ne duma fa dem duma fa tek suma tank yaakaar ne legui mu mat ñaar at bima fa gëjee tek suma tank ak legui donc c'est juste pour dire à Ousmane Sonko qui veut utiliser la police et la gendarmerie la justice en général pour régler des problèmes politiques

man ken douma jox convocation may wo ay jeunes naan len kay servir len ma de bouclier je ne ferai jamais ça Réumi, mi dama fi am ay responsabilité te musuma politique dama fi def li ma fi liguey te musuma am ndombay tank politique donc Ousmane Sonko quand tu veux éliminer un adversaire politique il faut que tu t'armes de courage il faut que tu te salisses les mains sa loxo yooyu Ousmane Sonko boo bo nga xam ding ko takal parce que man Bougane bo mu beugé éliminer non du ci caaxaan nga may éliminer lepp lo génn wax ko tudd dëgg boo génnee une heure du matin dinaa génn deux heures du matin boo génnee quatre heures dinaa génn cinq heures la preuve c'est démb kaddu yi nga fi wax dene dañu falsifier ay données économiques bu Sénégal da ko def ma génn ne waxoo dëgg tey jii suñu borom jox na ma raison parce que le nouveau représentant du FMI à Dakar de manière très claire et certes diplomatique Ousmane Sonko et au vu et au su de tout le monde on peut pas diriger un pays qui manipulation mënoo ci fen ci taf mensonges c'est pas possible Ousmane Sonko xeyna am nga bëgg mais force est de reconnaître que mën indil sénégalais situation ñu rassurez-vous lu mu la jaral ci pour yak man Bougane ak ñima ma wa coalition sam sa kàddu taxaw nañu fas nañu jim ak yow yaangi jëm lu nekk pour élection législative yi ñu jëm sam sa kàddu am ci ay jafé jafé man Bougane nga song xam nañu ne yaangi nek nekk di song ci mais rassure-toi c'est peine perdue cette coalition va libérer le Sénégal cette intercoalition va libérer les Sénégalais

yow Ousmane Sonko ak ñi nga andal pour diriger réew mi da ngeen d'accord ak FMI pour dindi subvention yi subvention yi bu ngeen ko dindé moy tekki ne woyofal day yok moy tekki ne dund bi day yok parce que ken dootul subvention ciép ken dootul subvention dewli ça veut dire tout simplement ñin ñi ci guttal li ñu jëm way way comme mënuloo inshallah le 17 novembre ñun wa gëm sa bopp and ak wa coalition sam sa kàddu and ak intercoalition bi ak opposition bi fu way mën fété taxaw nañu pour am majorité à l'Assemblée nationale pour que enfin ñu mën taxawal gouvernement bo xamné opposition bu Sénégal ay nit yu am kilifa ay nit yu xam fi ñuy jaar ay nit yu am parcours taxaw ngir sauver Sénégal parce que nak fiñu toll problème sauver Sénégal tay ji réew yi ñu dendal ñu ngi ñuy ré ken waralu ko luma yow Ousmane Sonko réew yi nga xam ne démb dañu wegoon Sénégal tey jii ñu ngi reetaan Sénégal kenn waralu ko lu tax yow la Ousmane Sonko aujourd'hui jafe-jafe yi nekk ci biir askan wi lan moo ko waral kenn rek la yow Ousmane Sonko tey jii wax nga wax a wax a wax ba ñu jox la réew nga delluwaat bëgg fi indiwaat yeneen coow ci ay mbirum falsification ay données économiques wane ni suñu fonctionnaire yi nekk ministère des finances duñu dara xamuñu dara loolu du dëgg tey du dëgg ëllëg jafe-jafe yi nit ñi dund jàppal ne coalition sàmm sa kàddu ak opposition bi taxaw nañu pour dindi ko mais comme yow Ousmane Sonko jàpp nga ne il faut nga éliminer ay adversaires politique jaar ci ay pratiques féodales jaar ci ay pratiques anciennes yoo xam ne nit ñi fàtte woon nañ ko yooyu nga bëgg delloo siwaat ngir indi buumu njaam ci réew mi ngir bëgg a falu bour ci réew mi on l'acceptera pas man Bougane li ma la waxoon demb mom la lay wax tay yow xam nga ne man Ousmane Sonko ragaluma yow Ousmane Sonko xam nga ne ñaar xamul ñett xamul waye ñaar xam yow xam nga ne man ragaluma xam nga ne man gëwuma la faalewuma la donc Ousmane Sonko lepp li ngay nas pour suñu coalition sache que je suis au courant yow Ousmane Sonko heure bo réunion wé la ngay wax ci man mingi ci suma téléphone je suis plus informé que toi et yow xam nga ne bu ma je suis plus informé que toi xam nga ci dara ci benen fan arrête d'envoyer des gens pour ñuy ñëw di waxtaan ak man pour naan ma wuy dëggal bal bi dañu bëgg nga gisante ak moom man Ousmane Sonko man Bougane soxlawu ma la gis je ne veux pas te voir parce que jàpp naa ne aujourd'hui yaay pestu Sénégal jàpp naa ne aujourd'hui góomu robaale Sénégal donc dama jàpp ne tey dañ la war a dindi ci Sénégal dañ la war a dindi ci responsabilité yi nga et loolu encore une fois sama rassure-toi tu peux utiliser la justice tu peux utiliser la gendarmerie tu peux utiliser la police tu peux me mettre en prison parce que tey sa position mën na le permettre loolu amul problème mais rassure-toi foofu nga nekk dinaa la fa jëlee foofu nga nekk di nga fa jóge et incha allahu le 17 novembre les sénégalais vont voter massivement pour vous dégager de là où vous êtes parce que les Sénégalais sont fatigués